sunu tomb tey ci nitu yàlla lan muy nitu yàlla ak kan muy nitu yàlla yàlla joxoñ ko ci alquran wax ne ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ñooñu ñooy ñan mooy alladina amanu wa kaanu yattaquuna yàlla nee na sama nit ñi nga xam ne maa mingo seen mbir taf leen ci sama bopp ñooñu dara lu leen di ragalloo wala lu leen di tiit loo amul wala loo xam ne dana leen tiisloo ñu ne ko ñu ñooy ñan mooy ñi nga xam ne mooy ñi gëm yàlla ngëm gu dëggu ba noppit ragal yàlla teg ci yàlla melal leen nag ci aaya yoo xam ne tudd na leen ci ci alquran tudd leen ci ngëm yàlla tudd leen ci ragal yàlla te ñaar ñoo ñu ñooy ponk wilaaya nag parce que nit ki buñ ne la waliyu la wala ñu ne la nitu yàlla la te gisoo ci moom ragal yàlla gisoo ci moom ngëm yàlla gu mat sëkk lañ koy tuumal des na day teg tànkamit nag ci sharia ndax fa kullu muminin taqiyun ku gëm yàlla ku ne rek di nga ko ragal te nag bu ñuy seet matricule waliyu mi ngi nekk ci ragal yàlla ndax nag euh, inna al baaba maftuxun imma an yuridu an euh, an yuballiga haza al manzilati al aliya wa rutabati sunniya ndax baabu buntu waliyu su fekkee dafa ubbeeku nit ki war cee jaar mooy day doon nit koo xam ne dafa dëppale lépp boppam ak lépp yàlla ca wàccuwaay ba ca martaba ya ca teg tànkam ci sunna ak dund ko nam ko war a dundee lañ ko ca lañ ko ca sant lépp ci topp yàlla waaye léegi nag dangay ngay gis wootewu bi dafa bari lool koo xam ne dafay taxaw rek ñu ne diw waliyu la te fekk na sax tegul tànkam ci sunna wala na muy jaamoo yàlla sax sellal ga ca jëf ya des na ak topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, jëlee nañ ci ko ñuy wax Shawkaani mu wax ne bu fekkee nitu yàlla dañ koy natt pour mën koo xam ci li koy wéral ni kii waliyu la mooy day nekk nit koo xam ne aamilan bi kitaabillah aaliman bi kitaabillahi wala aamilan bi kitaabillahi lay doon day xam téereb yàlla bi boole ko di ko jëfee parce que ci alquran képp nga mën a peese nit ki xam ni kii am na cër ca yàlla mooy naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon kun aaliman aw mutaalliman aw mualliman euh, aw muhibban aw kun aaliman aw mutaalliman aw muhibban wala takun lil xaamisa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon doonal kuy sàkku xam-xam soo ko amee nga doon kuy xamle soo ko doonee nga doon ku sopp xam-xam wala nga doon koo xam ne boroom xam-xam nga wala nag bu leen juróomeel waaye nag bu juróomeel parce que soo leen juróomeelee da nga moo tax sunu maam Cheikh El Hadj Malick radiallahu anhu wax ko ca wayam wane inna alqurana huwa almizaanu taarifu minhu ma xawayta min al aswaaqi wa sadami alquran mooy balance bi nga xam ne ci lañuy peese nit ki am ci yàlla boo bëggee xam noo toll ci yàlla seetal foo toll ci alquran ak foo toll ci sunna si yonent bi sallallahu wa sallam moo tax ci teg sa tànk ci sunna ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ñuy xamee foo teg sa tànk ci branche waliyu ci sharia ak ci bëgg yàlla ak ci topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax képp koo xam ne yaa ngi woote woo wilaaya euh, te yii nii nga wuute ak ñoom mënuñ laa considéré kuy woote woo wilaaya dañ lay considéré kuy woote woo loo xam ne fen rek a ca nekk ndax awliyaullahi tajibbu mawallaatihim wa tuharrimu muaadaatuhum wa kullu man aadaa waliyallahi bi qawlin aw ficlin fa inna allaha yaclamuhu bi annahu muxaaribun lahu wa annahu subhaanahu huwa alladi yatawalla addifaaca anhu wa laysa lilcabdi qablu wala taaqata bi mu bi wala taaqata bi muxaarabati llahi azza wa jalla ah, dañuy wax ne mbokk yi ku yàlla méngoo say mbir yàlla féetewoo sa lépp nag parce que bi nga teetee lu xaraam dëppale sa bopp ak li neex yàlla ci la yàlla jël sa lépp féetewoo ko boppam yàlla it mooy wëlbati ku doon sa geerkat nag ndax ku lor waliyu yàlla ci wax mbaa ci jëf amuloo ak waliyu waa affaire yàlla nga am ak affaire parce que dañuy wax ni nitu yàlla ku ko tooñ du yëg sax ne tooñ nga ko waaye yow ci sa bopp yaay dem ba yëg ne def nga musiba ndax nag yàlla moo garanti ay waliyoom yàlla ci boppam moo garanti ay waliyoom parce que wax na ko ca xaddisul qudsi ne awliyaai ibadi laysa yaarifuhum xayri waliyu yi samay jaam lañ kenn xamu leen ku dul man euh, nga seet ci sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu keroog bi ñu ko jàppe di ko yóbbu bokk na ca bayit di mu saddoon ne asiru ma al xiina asiru wa zanna al ida anni hunaka asiru mu ne ñi ma jàpp jiital ma ñi ngi defee ne ñoom man kese lañ ànd ak te na man waa ahlu badar yëpp def nañ gàngoor ànd ak man escorté ma ci ndigalu yonent bi loolu lu ko ko may muy jël boppam taf ci kaw yàlla moo ko may kon nag yalla wax na ci alquran ne innama waliyukum allahu wa rasuluhu alladina amanu alladina yuqimuna alsalata wa yutuuna alzakata ah wa yutuuna alzakata wa hum raakiuuna wa man yatawalla allah wa rasuluhu alladina amanu fa inna xizba allahi hum algalibuuna yàlla nee na ah, sama wali yi nga xam ne gëm nañu ma wala ñi nga xam ne gëm nañu ma ba egg ci garaatu wali nangoo taxawal julli ca na ma leen ko sante di joxe azaka ca la leen yàlla jox ci seen wërsëg di sujjóot ak ruqu fuñ toll man yàlla maa méngoo seen mbir ak yonent bi ak gaa yu baax yépp ndax nag kuréelu yàlla gi lu mu yàgg-yàgg ñoom dong ñooy féete kaw moo tax jële nañ ci abi hurayra radiallahu anhu mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla wax na ci xadisul qudsi ne man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harbi ku ma noonul sama waliyu man yàlla déclaré naa la guerre te yàlla kum déclaré guerre wax dëgg yàlla guerre ngaa ku mat a ku mën a guerre wax ne maa taxarra wa maa taxarraba abdi ilayya bi cheyin ahaba ilayya mimma aftaradtu alayhi sama jaam bi du dañ di ma jege mukk lu dul ba dafa dëppoog li ma sant ci moom muy farata mu di ko def na ma ko ko sante waaye mu dellu waxaat ne wa maa yazaalu abdi yataqarrabu ilayya binnawaafili xatta uhibbuhu sama jaam bi du dañ mukk di ma jege ci di def ay nawaafil nawaafil nag su ñu ko waxee mooy julli farata yi jeex nga tofal ca yeneen julli weeru koor jeex nga tofal ca yeneen koor azaka jeex nga tofal ca yeneen sarax aj màkka jeex nga tofal ca yeneen umra ak yeneen yu baax yoo xam ne nit ki dana ko def ba du dañ di jege yàlla mbokk yi yàlla wax ni su ma soppee sama jaam boobu man boromam maay doon bët yi muy xoole man boromam maay doon nopp yi muy dégg man boromam maay doon bët yi muy xoole man yàlla boromam maay doon loxo yoo xam ne lu mu téye man yàlla maa ci ànd mu téye ko te it nag su sàkkoo wéeru ci man man yàlla danaa ko xettali ba mu wéeru ci man te it nag su dawee làqu ci man man yàlla danaa ko fat jëlee nañ xadis bii ci Buxaari yi moo ko soloo Euh, jëlee nañ ci abi saidin al xudri radiallahu anhu mu wax ni yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na jullit boo xam ne sa njullit dëggu na ba yàlla féetewoo say mbir wala nga féetale sa bopp ci mbir yàlla nee na amul benn ñaan booy ñaan lu dul ne yàlla dana la nangul ñaan ga su fekkee bàkkaar nekku ca wala luy dog ak bokk jullit nag day moytu di ñaan yàlla lu koy jural bàkkaar wala day moytu di ñaan yàlla luy jur bokk gu dog mbokk yi yonent bi nee na jullit bu ñaan lii yàlla dana ko jox lam ñaan su fekkee ñaar yooyu ñaar yooyu nekku ca waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla dana gaawe ñaanu jaam bi su fekkente ne ñaan na ko lu mu ko ñaan yàlla dana ko ko gaawee jox ko ko ci àddina wala mu téyel ko ko ba yowmal qiyaam wa illaa yàlla jañal ko ca loo xam ne bu agsi woon du ko attan moo tax yàlla ku ko ñaan ku ne nangul na la lam la ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana ko wax ne ud'u llaha wa antum muqinuuna bil ijaaba waalamu anna allaha la yastajibu bi xalbin gaafilin laahin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla lu ngeen ko ñaan na ngeen wuur ne may na leen ko su ngeen ko yëge ak su ngeen ko yëgul ndax yàlla kat am na fayda ju doy ni du def ci borom xol bu sàggan dara wala koo xam ne li ngay ñaan bi nga koy ñaan yaa ngi ci jublu am po yàlla du la ko may kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp yàlla nañu yàlla boole ci gaa yam yi nga xam ne ñoom la soppal boppam ndax nag yàpp wali yu dañ ko tooke loolu ma di ko dénkaat suñu mbokk yi encore une fois nañu wattandiku suñu mag ñi di wax ci ñoom safaan nañu wattandiku suñu mag ñi di wax ci ñoom safaan ndax liggéey nañ li ñuy liggéey ba am ca yàlla lañ am dañuy wax ne nag wax ba yàqu mën nekk waaye wax ba yàq mënul nekk kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak loolu moo doon seen jataay bi ñu leen indiloon ci suñu nitu yàlla yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu